loolu mënatu la continuer ñun nag li ñu wax mooy président Macky Sall su bëggee jàmm na wax député ni projet de loi bi nga ñun moom lañu yore ñun waa ànd sàmm jikko yi nga xam ne daañ ko dem teg ca table président assemblée nationale ne ko na voté loi bi pour sénégalais yëpp kontaan ci ñoom parce que ñun amuñu lu dul suñu kilifa diine amuñu lu dul suñu diine te Touba signé na Kaolack siñe na Tivaouane signé na Ndiassane signé na Layène signé na ñëpp signé nañ ne d'accord nañ ci ne loi boobu nañ ko voté képp kuy def yëfu ngóor jigéen ñu tëj la ci kaso bi ba nga def suñu mënul loolu danañ taxaw xeex ak président Macky Sall ak nguuram pour ñu voté loi boo xam day tere ngóor jigéen su ko mënul moom président Macky Sall dinañu abal ñu fal beneen président boobu nan la naa def. mais daam. déggoo li ma wax dama ne la sénégalais yi ñoo moom réew mi réew mi ma Macky Sall moomu ko sénégalais yi ñoo moom seenum réew ñun ñoo fa fal ñun président Macky Sall kon dafa war a dox ci li nu bëgg ñun su fekkente ne ñun Sénégal yëpp si signé ni ñu góor jigéen président Macky Sall da koo war a wax ay député am ni nañ voté loi bi su ko deful moom président Macky Sall su deful loolu dinañu abal ban conseil ngay jox xale yi. xale yi jeunesse bi waaw. li leen di wax. mooy réew. jeunesse moo ko yore. réew mu jëm ca kanam. ay ndawam ñoom du fa yóbbu. réew mi fu mu bëgg a jëm. ñun ñoo ko fa mën na yóbbu. ñun bu ma koy wax mooy tout tànk yi. nga xam ne réew mi ñoom la soxal. kon nag ñoom ñoo war taxaw seen taxawaay boo xam ni képp ku nar a yàq réew mi ñoom ñu taxaw. kon ndaw ñi nañu xam ne seen rôle. mooy ñu aar Sénégal aar seen bopp aar seen askan aar sen diine aar seen ngëm-ngëm aar seen ëllëg kon nag président Macky Sall na xam loolu mais ndaw ñi tamit nañ xam loolu te mu won ko ni ko réew mi képp ku fi layam-layam yi dag ñu amal